ak sa sant ak ban quartier nga fi toog. man maa ngi tudd bi. Mhm. maa ngi di chef de quartier euh, bi est-ce que mën ngaa ñu ñëwal tuuti ci li nga xam ne moo ñu fi dajale tey. waaw li ñu fi dajale tey day xéwal la loo xam ne fa tabaarakallaahu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam di wax ne daal mbir mi ñëpp kontaan nañ ci. Euh, amoon nañ loo xam ne lii moom lañ doon yaakaar waaye yàlla indi na ko tey. muy lan dund bi nga xam ne bii président de la République jagleel na ko askan wi pour dund boo xam ne moo ñu toogoon seen kër yi doon muñ mbiri euh, euh, mbiri euh, feebar bii nga xam ne moo moo lëmb réew mi te yàlla ko yàlla jëlee ah feebar boobu moo taxoon ni ñu toog ci kër yi. waaw li ma bëgg man maay El Hadj Wack li représenté fi maire bi nga xam ne mooy président comité communal de ciblage bi ñu ngi rafetlu liggéey bi di gërëm préfet ndax wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee dañ yaakaar ne sax ñun ñoo koy def mais bi ñu ñëwee fekk neen manoeuvre yi ne moom ñu def liggéey bi ba pare donc ñun dañoo ñëw rek di joxe donc lii moom mu ngi topp si li nga xam ne moom la ministre bi defoon wàkk nguuna defoon cérémonie de lancement bi tey aussi préfet ñëw wooñu nañu quartier bu ne indi fukki nit mu juróom benn fukki nit ñu jox ko xam naa soo gisee mu def loolu mënoon nañ jël par quartier mais soo gisee mu def loolu tey da genre communication la hmm. su duggee si quartier yi ñëpp ay yëg ni bi commencé na

waaye yaakaar naa ni tey incha allah ñëpp dinañ kontaan bu soobee yàlla daal d'ici 3 4 jours yaakaar naa ne yëf yi dina jeex. waaw ah. bénéficiaires yi jàll si leneen. bénéficiaires kenn ku nekk am na kit est ce que mën ngaa dellu si si kit bi. la waaw kenn ku ne am na savon 18 morceaux 100 kilos de téeméeri kilos ceeb am nañ pâte mooy spaghetti wala macaroni am nañ euh, fukki kilo am nañ suukar ah, fukki litre diwlin de fukki euh, fukki kilo dégg daal yaakaar ku ko si jot am na si ñoo xam ne yaakaar naa ne mën na leen yóbbu ba ñaari mais dañuy continuer incha allah dañuy continuer bu soobee yàlla suba wax leen ni quartier bi ñu indi fukki nit su ko defee muy téeméeri nit ak ñaar fukk loolu suñ ko continuer yaakaar ñetti fan ñeenti fan incha allah affaire bi dina jeex te du am bousculade du am dara bu soobee yàlla yaakaar naa suba 8 heures wala 9 nekk su ko defee ñu continuer liggéey bi incha allah surtout Euh, du président commission des lois de l'Assemblée nationale Tay ma distribution président de la république Macky Sall ko Sénégal euh, tay nak département de Nioro euh, rawatina askanu commune Nioro direct. muy ndimbal lo dañ ko don xaar muy rafetlu ndax wax mu doon xaar bu population bi yaakaaroon waaye nag yaakaar naa ni xëy na yéex naa yegg si waaye tey euh, rafetlu nañ vraiment ni niñ ko joxee rafetluñ aussi organisation bi nga xam ne préfet département Nioro di Abdou Aziz Diagne vraiment organiser na ko ba tey ndimba bi ñu koy joxe joxe bi yomb lool di ñaan yàlla nag nii ñu koy joxee commencé ko tey ñu continuer ko balaa ay fan yu néew ñu ne ndimbal lañ doon xaarkat yegsi na ba joxe nañ ko ba yegg na ci seeni borom di gën a rafet lu taxawaay bi di jëfal également ñi nga xam ne ñu nekk ci comité d'organisation bu commune bi vraiment liggéey bu rafet bi nga xam ni liggéey nañ ko ci taxawaayu monsieur le maire de la commune Abdoulaye Ba ak ñi nga xam ne ñooy délégué de quartier juróom-benni quartier Nioro du Rip yëpp vraiment euh, xëy na xaar bi yàgg na waaye nag tey nit ñi vraiment nee nañ alhamdulilah rabil alamina man jox nañ ma suukar jox nañ ma macaroni jox ma diwlin jox ma saabu li may fóotee jox ma ceeb bu may dundee sant ak ngërëm rek laa si man eh, ban koñ nga jógee ko man maa ngi jógee ko fii ba nuuru laay asalaamaaleykum maa ngi tudd ma Pathé Bessane nekk délégué de quartier Thiérère tey nag ci lañ doon def kii bi de cérémonie de lancement bi ak préfet bi ak maire ak euh, député yi waaw moom lañ doon def tey Euh, lan moy sa xalat ci li nga xamne jox nañ ko jaglel nañ ko askan wi ci wàllu ciep ak diwlin ak euh, li nga xamne moy mooy ndimbal li ci dina lu ci sa xalat yow wa ndimbal li lay dafa fatu bon bon yu bari presque la mën a wax wax deug yalla fat na ay yenn tour yu bari parce que tax bo ñi nga xamne ne waroon nañoo gën dem uuti ah dina leen mën a fi ak bu ca kanam waaw parce que kenn ñaanu yalla li continuer parce que dafa doon feebar boo xam ne baare woon na activité nit ñi yëpp ba nga xam ne kenn mënatul dem fenn waaw ñu daan test euh, si di dem mënatuñoo dem waaw ñu doon mën a war a génn dem lijjanti ji war a mënatuñoo dem lijjanti ji kon lii bu fekkente ne dugg na ci aussi dina bokk ci ndimbal li gën am solo hmm. waaw ñu ci gërëm gouvernement bu baax.